murtajan minnatun lana jariun munjin min sunu bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy seetaan te di ñu déglu ñu dellusiwaat ci sunu jataay bi ñu tuddee madinatu ilmi ñu di ko amale fii ci sunu 24 actu ñu koy amal ayu bu nekk di ci waxtaanee loo aju ci réew mi ak lépp loo xamante ni diine la ñu ciy waxtaane lu bari di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo nuy topp jataay yi di ko rafetlu ak ñi nga xam ne xañ na xalaat yi wuute na ñoom ñëpp ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen siyaare bu baax tey ji nag ñu dellu siwaat ci jàngat ci élection yi nga xam ne daf fee passé amoon la 24 février 2019 mu doonoon élection présidentielle ñu def ko ci jàmm ba génn ci waaye dafa am jàngat bu mag boo xamante ni gis nañ ko ci biir élection yi gis na am na yàqu-yàqu yu ci am yoo xamante ni ci ci lu mu def ci réew mi te gis naa ne suñ ci teelu te waxtaan mën naa continuer lool di doon ay yàq yàq yoo xamante ni la muy indi bu kenn xam fa muy yem te wolof yi dañuy wax ne magam xamoon naa ko magam waxoon naa ko moo gën magam xamoon naa ko bis ni ko tey nag ñu ngi yëkkati sunu kàddu di wax ne am na lu mu yàq li mu yàq mën na noo tàmbalee ca réew mi ku nekk da koo xamoon ci ak dal xamoon ko ci kaf xamoon ko ci ree réew yépp ñeewoon na ci loolu ñu doonoon benn boo xamante ni bi nu ko yàlla sante sax ne nan doon benn waxta si moo bi abdullahi jamian walaatu tufaraxo bu leen teqalikoo loolu fekkoon nañu ñun bi ko alxuraan waxit ñu jëf ci suñu jëfi bopp yoo xam ne jéggi na dayo waaye gis na ne élection yi tax na loolu dem yàqu lu ci bari tàmbali di yàqu ndax gis nañ ne dem nañ ba waaso ak waaso di wax aw xeet maanaam ñii di wax na ay wolof la ñii di wax ay séréer la ñii di wax tukulóor man ku dut tukulóor du ma la wooteel wala ku dut pël du ko jàppale ñii nekk fële ne man tamit waaso sàngam laay topp diw mooy sama mbokk ci élection yi moom laay jàppale loolu nag dara gënu ko doon doon yàqu-yàqu bu fekkee ne li ngay def ci sam réew sa mbokk rek nga ko aj wala sa waaso rek nga ko aj wala sa tarixa rek nga ko aj wala ci sa wàllu diine koo bokkal diine loolu yaakaar naa yàqu-yàqu bu rëy la te loolu bi ñu demee ba ci résultat yi génn ku nekk wane na ko ci nàngam boo demee ñi nga xam ne dañ na woon ay murit lan boo demee murit yi dañ leen supporté cent pour cent wane ne ñoom ñooy seen mbokk ñu jàppale kooka wala ñooy seen mbokkam tarixa ñi nga xam ne dañ ne ay tarixa beneen lan bokk tijaan lan bokk wala dara ñoom it ñu neen jàppale diw sàngam ndax mooy sunu mbokk tijaan ñëlee dem ne nan jàppale diw sàngam ndax ñoo bokk daayira ba yooyu ku ci nekk sa résultat ñii ne diw sàngam waaso sàngam la bokk walla dëkk sàngam kon nan ko jàppale boo demee ña dëkk ca exemple Casamance gis nañ ne danoo woote ngir jàppale seen mbokk muy waaso nga gis boo demee fuuta ñu ne nañ jàppale diw sàngam ndax moom mooy ñoo bokk moom waaso loolu nag Sénégal xamu ko woon gis nan sax bu fekkoon ne loolu rek ci lañ yem mën naa bañ a jur dëgg-dëgg sax lu garaaw waaye ba léegi du analyse nit ku xam dara cim réew ni muy doxe ndax danoo jàpp ne am réew ku koy defar danga koy def ci ay qualité ngay tànn ay nit compétence ci la ñuy tànn nit mais duñ ko tànn ci waaso duñ ko tànn ci tarixa duñ ko tànn si ni te buñ seetloo li ñu symbole muy pale ba chrétien bi ak musulman bi ak murit bi tijaan bi pël bi séréer bi ñoom ñëpp li nu bokk ci Sénégal bokk ko moo xam ne ñoom mënuñu koo séddoo mooy pale ba waaye lu dul lool rek ku ci nekk am nga sa diine looy doxal kenn mën na la caa bañ a fekk am nga sa làkk wooy wax boo xamante ni nit mën na koo bañ a dégg yaa ak ña ko bokk mais bu dee pale bi moom ñëpp a ko bokk. gis ngeen ne ka fa njëkk a dugg ab chrétien la ka ca toppaat noonu keneen du chrétien waaye moom it mu doon jullit ka ca toppaat doon nii kon mooy wane ne pale bi amul kenn ku fa jomba dugg ci Sénégal boo di sa Sénégalais wëree waaye bu ñu demee ba ni diw sàngam waasu sàngam wala xeet sàngam wala nàngam loolu yàqu-yàqu bu rëy la bu rëy rëy rëy kàddu yi ci toppaat doon kàddu yi ñaaw man ku bokkut ak man waasu gis ngeen fii koo xamante ni taxaw na fi. ne mbooleem ku doon wolof saaga saaga woo xamante ni wu ko gën a ñàng ci àdduna amul loolu sax lan cay dolli mooy wolof wolof moom amul képp ku taxaw ne wolof nga umpale nga sa bopp umpale nga sa bopp wolof amut làkk wolof moom am na waaye wolof ci boppam jëmmi wolof amut ndax saa boo demee di nga yëg ni am na koo bokkal bokk sàngam fenn nga bokk am ñoo xamante ni wax ci wax ju ñaaw joo xamante nii koo bokkal aw tund rek wala koo digalool aw dig sax war a ko wax loolu wala koy séenanteel waxantuma laa koo bokkal benn raison ngeen bokk benn kii ngay yëkkati kàddu yu ñaaw di ko wax loolu la muy jur mooy ñun ñi ko fekkee di den xam ne yëf yi tëddewut woon nii den xam ne mbir yi doxiwut woon nii waaye sunu doom yi sëti sëtaat yi ñëwaat nga xam ne fekkiwul loolu bu boobaa danuy wax ne Sénégal kat ndeke lii moo fi mas a am ay waaso ñoo mas a am ay tarixa yi ñoo mas a ànd wala nangam bu dee ci wàllu tarixa ñi ko sos fii ci Sénégal ñin fi gën a xam wala ñu tarixa yin fi gën a xam mu tarixa tiijaan ak murit ñi ko séqoon ay mbokk lan yoo xamante ni yu rafetaloon rafetal sëñ Tuubaa wax nañ ni fii ci njaareem daanañ fi joxe daana joxe werd tiijaan daana joxe werd yépp këram gi ci njaareem daanañ fi wasifa wasifa amoon na fi koo xam ne daan ko fee def daan ko def mas naa fekk ñenn ci taalibe yi ñuy wax ci diggante tiijaan ak murit mu ne leen mbaa da ngeen di def ne yëxoot yi nasaraan yi daan def won na leen loolu du dara ba ñoom dàqoon ko ci ñu doon ay mbokk même temps ñu doon ay mbokk bu ñu jógee ab tijaan mën a wax ci murit lu ñaaw ngir ay élection ab murit mën a wax ci lu ñaaw ci euh, ci ab tijaan ngir ay élection loolu lu ñaaw a ñaaw a la boo xamante ni dara gënu koo gi te ñi nga xamoon ñoo taxoon ñuy wax loolu wala ñoo taxoon ñu ànd ak ñoom bu ñu seetloo rek gis ngeen na noonu daf cee feeñ bu baax ku ci nekk fa nga wane woon wa waaso wala wane woon wala tarixa bala wane woon wan na la ak féeteem loolu nag du compétence su tànn compétence su tànn mooy ku gën a mën kan moo gën a baax ci réew mi kan moo ko gën a àttan ci kom ci ci xam-xamam ci ak maandoom ci laabiram ci woyafal ci jéggal nit ñi kan moo ko ci gën a mën jàpp naan loolu lan waroon tànne waaye warunoo tànne ci tarixa warunoo tànne ci waaso warunoo tànne ci nangam te ka ko doon saaga woowu ma wax léegi ka ko doon saaga amul lu tax mu saaga nit ñi lu dul saaga diw sàngam ndax dañ koo wootee lu wala lu tax ñun nàngam bu doon da koo teg ci beneen anam mais anam mu woote rek la ko teg kooka am na lu ñu ci jëfandikoo xuma jëfandikoo nu mu doon waaye euh, bu fekkoon ku wax yoo wax ju mel noonu ñu jëfandikoo yow nu gën a diis noonu ndax koo xamante ni mën ngaa ne sénégalais yépp wala xeet sàngam yépp maa leen di saaga ndax sa intérêt bopp loolu lu ñaaw la te Sénégal dañoo xamoon ci kaf ree gis ngeen ne booloo gin booloo boo demoon tey fi mu toll ci kalante rek ñi sant Faal ak ki sant ñan ki sant Jëng bu nu tasee kaf ngir ree nga xam ne loolu ñun ñoo ko kereel suñu bopp ñun sénégalais li ko sant Faal mën a wax ki sant Jëng te du ci gis boppam wala ki sant Mbàkke ki sant Buusa ki sant Ndaw ki sant beneen sant boo sante ne sénégalais yépp fexewoon nañ ba keree ay ay ay kal waxuma la ci loolu waaye ci xeet yi sax fexe woon nan séréer bi ak pël bi tëgg bi ak pël bi nangam nangam ku ci nekk njoolaa ku ci nekk amoon nga noo yebe sa moroom pour kaf ak moom jëlee la naa lool sa waaye da ngay dem ba ci ñi bokk dañuy kaf ay doomu bàjjan doomu nijaay ngir relation dem nañ ba ci yumpaañ bi nga xam ne xamuñu ko sax ci ban programme la jóge da ngay kii sama doomu yumpaañ la wala sama yumpaañ ngir bëgg moral bi fenn fu muy dagge du am yooyu yëpp ay kaf la woon ay kal nga gis sët bi nga xam ne sax da ngay gis ku la mat maam nga ne ko maam di ko kaf ak moom même boo ko xamul ngeen tase ci mbedd sax da nga ko naa wax ko ndax xam nga ne sa maam la li nga koy wax mën naa am dara du la ci fekk yooyu yëpp doonoon ay bunti wane ne ñun ñëpp benn lañ mu doonoon yooyu ah, ba ci ñi dëkkoon bawal ak kajoor ak ñi dëkk fee ñëpp ku ci nekk demoon nga bët ci ah kii de bawal bawal la kii ne njàmbur la kii ne kajoor kajoor yooyu yëpp ay kaf la woon ay relation yu rafetoon yoo xam ne amoon na bu ñu demee ba élection yi nag dindi ko wala yàq ko ñu waxante wax ju ñaaw joo xamante ni dara jëru ko dara dara dara jëru ko ki nuy jàppale jëru ko te kooko ci boppam bu amoon xel képp ku mu gis muy waxee noonu wala mu defee noonu dina ko def mais seen intérêt bopp jaraloon na leen ak loo leen mën a défendre ak loo leen mën a waxal te ñoom seen intérêt bopp jaraloon na leen ñu ne cell cellaaral dem ba xeet sàngam xam ngeen ne Sénégal àgg na ci xeet sàngam maanaam di takkante te yooyu yëpp tëgg bi di may géwél bi géer bi di ci takk nangam loolu doon lu rafet a rafet kenn mësta boddi sa moroom kii di takk pël kii di takk njaago kii di takk joolaa kii di takk séréer kii di takk yëpp yooyu yëpp doon yu rafet bu ñu demee ba boddante xeet nag dem ba ay élection teg nu ko ñu dem ba fi ñu toll euh, kii laaj réew mi sax xalaat na ba xam lan la war a doon wala fan la war a làqatu ndax dafa war a làqatu ci tariqa sàngam ndax dafa war a làqatu ci xeet sàngam ne moom laa bokk wala nàngam wala ci nàngam laa bokk ngir ñooñu jàppale ko te fekk ne bu dee loolu benn nguur du xeet moo koy joxe yàlla mooy joxe xeet du tariqa mooy joxe xeet du diine sàngam ci laa bokk ngir mooy joxe xeet ndax bu nu seetoon si Senghor mi fi doon jiite bokkul woon ci diine euh, diine chrétien la bokkoon te chrétiens yi ku ne xam na ni musulman yi ñoo leen ëpp Sénégal bu fekkoon dañ ko tegoon ci diine chrétien la bokk rek ñu wooteel ko kon benn chrétien du mën a yor réew mi ndax ñoom majorité bi mi ngi ci musulman yi kon loolu nañ ko fi teel a dàq mel ni liir bu juddu woon boo xam ne dafa juddu rek ñu daal di koy delluwaat loolu ñuy wax liir bi dafa juddu delluwaat waaye lii noonu la war a mel médias yi war nañ cee def communication kilifa diine yi war nañ cee wax xam ne réew mi kenn du ko laaje ci nii kenn du ko jële ci nii kenn du ko wotee ci nii kenn du ko jële ci dañ ko war a jële ci wane na ay sénégalais ñoo fi dëkk même bu dee séréer même bu dee tukulóor même bu dee wolof même lu mu mënti doon am na noonu lañ ko war a laaje mais laaj ko ci xeet sàngam moo fi ëpp wala xeet sàngam laa bokk wala nangam ñay woote tamit jàpp ne ku dul xeet sàngam du ma la wooteel wala nangam yooyu ay dënn yëngu ci yu mare bari xam ngeen ne élection yi lu nekk mënoon na cee xew waxuma la ci wàllu woote ko rek jëmmi élection li mu am waaye jëmmi xeet sàngam jóg jëmmi tarixa sàngam jóg jëmmi diine sàngam jóg loolu dara jëru ko dara jëru ko ku ci noppi nag yaa ngi noppi ci loo xamante ni donte da ngaa dugg ci bàmmeel am ca téeméeri at bàyyi nga fi coow loo xamante ni wala bàyyil nga say sët ndono yoo xamante ni ndono yoo xam du rafet mag ñi danoo sàmmoon réew mi ci bennoo ci relation ci dox ci xeet sàngam buur yi ak ceddo yi ñu ko tudde woon ñii di jëlante di takkante nga gis ne boo demee ci ceddo yi seen doom ña ngay sëy ci kilifa diine yi nga gis doomi doomi ceddo yi tamit doomi sëriñ si di dugg ci biir ceddo yi loolu bennoo gunu benn woon ndax yàqul dara amul dara lu mu yàqu loolu nag bu ñu dikkee ba ci jamono boo xamante ni àgg nañ ci jamono boobu bii nga xam ne danoo dem ba élection nara yàq yàq famille bi ba tàmbale leen ba tàggalee jullit yi wala tàggale senegal yi def leen ay xaaj tey boo ne Fuuta laa dëkk am ñu xool la benn nga ne Touba laa dëkk ñu xool la benn bët nga ne Touba Tivaouane laa dëkk ñu xool la benn nga ne ba yooyu nag dañoo waroon ne bu gis ne yàqu-yàqu la boo xamante ni bu rëy la bu ñu demee ba diw sàngam ne man damay dem laaj mairie sàngam ci Dakar ñu ne ko bokkoo ci xeet sàngam kon doo ko jël nan ko fi jële ba àgg ci di ko tëkku ak nangam loolu dara gënu koo xam citoyen la am ay droit mu sañ laaj nangam ñu ne ko yow doo ko laaj ndax parce que bokkoo ci xeet sàngam bokkoo ci sàngam mooy lan te bu ñu sénégalais ñun koy liñ ko waroon a laaj ndax ab sénégalais nga mu ne waaw ndax mën naa liggéey ñu xool ko waaye diw sàngam moo bokk ci ñun mais yow bokkoo ci di ko denoo dénoncé àdduna bépp di ko déggandoo réew mépp di ko déggandoo kenn yëkkatiw ci sa kàddu wax ci loolu yaakaar naa ne lu doy doy waar la kon loolu nan ko teele dindi ci réew mi am na ci béréb yoo xam boo demoon ci liggéeyukaay sax béréb sàngam wala ay xeet sàngam ñoo fa nekk wala diw falu naa samay mbokk laay fal wala sama famille wala sama nangam wala ñu ma bokkal tariqa wala ñu ma bokkal lii loolu du doxal am réew du doxal démocratie mais du doxal Sénégal nu mu war a doxe Sénégal dana war a jàppoo ñun ñëpp ñoo ko déggandoo ñu ne Sénégal gaal gi nan fexe mu ngi mel ne nanga ko duggoon ci gaal nit ñëpp bàyyi ko mu toog ñu séddoo gaal gi mu a day yett wàllam ñëpp nekk ci géej gi bu ñëpp toogee di ko seetaan bato bi wala gaal gi day diig ci biir géej gi loolu nag mooy lii bu fekkee ñëpp toog nañ di seetaan lii xàjjaloo gi am féewaloo gi am ba fés kàddu yi jëm jóge ci murid yi jëm ci tijaan yi kenn xamul nu mu todd kàddu yi rafetul nga gis kàddu yi jóge ci tijaan yi jëm si ci murid su ma nee tijaan yi ña ca gën a ñàkk solo ñoo jëkkati kàdd yooyu bu dee demee ci tijaan yi ña ca gën a ñàkk solo ñoo yëkkati kàddu yooyu jëmale ko bu dee ci murid yi da nga yëg ne ña gën a ñàkk solo ñoo yëkkati kàdd yooyu waaye ña sos tarixa yi fa nekkoon ak ba ña leen wuutu kàddu yooyu mësuta jóge ci ñoom xalaatuñu seeni i mbokk lañ leen jàppe woon jàppe leen seen i wëlëre jàppe leen seen i mbokk deret ak mbokk diine ñu bokk loolu yaakaar naa ne am na un jour ku dégg muy nettali ne bàyyi ñas nit da ko wax ah, ba nuy ubbi jumaa ji sëñ jumaa ji di ko inaugurer dafa am ku ko wax ne ko ah tarixa bi de day bañ di siyaare ci wenn wàllu mu ne ko waa tarixa bi nga wax man demuma en tant que tarixa waaye jullit buy dem di seeti mbokk jullit laay dem loolu lu rafete noonu kenn xamul nu mu toll loolu moo war a am ci réew mi moo war a am ci mbir yi ak ba ci média yi ñuy ubbi sax di ko tuddee ay di yoo xam ne day màndargaal benn euh, këru diine wala nangam loolu war nañ cee ndax bokk na ci li mën a indi guerre bu nit indee média bu mu ubbi wane ne daf ko féetale ci tarixa sàngam am ko ubbi moom it ne da ko féetale ci tarixa sàngam loolu ab guerre lay indi ne tarixa sàngam man xaw ma awma ci ñoom soxla man sama tarixa nangam kenn sañu bañ loolu mais yooyu waroon nañ koo dépassé ci Sénégal ci ni nga xam ne ni la nit ki dafa war a jóg rek ngir liggéeyal réewam ngir liggéeyal diine lislaam waaye ngir mën a dund dund gu yéwén mais luy tax ay nit di noonoo wala ñuy tàqalikoo te yonante bi salaa salaam nee na képp koo xamante ni itte woowoo mbiri jullit yi bokkoo ci ñun képp koo xam ne yaa ngi taqale nit ñi bokkoo ci man te lii ñu gis moom taqalikoo gu rëy rëy rëy gu goo xam ne ñun ñëpp ñoo ci tegandoo suñu bët kenn ku ne li ma ko doon dégg rek waaye gisuma ko waaye amul ku ci nekk gis nga ne résultat sàngam la tax diw am ko fenn mooy xeet ko ko may waaye du xeetu dañ ko tànn ci man ñu ne résultat sàngam la tax nit am ko mooy damaa bokk ci tarixa sàngam moo ko may foofu résultat sàngam dama ko gis damaa bokk ci diina sàngam loolu nag yaakaar naa ne lu jara kii la ab feebar la boo xamante nii ñun mën naa am lan ci la ci feebar bi di dinu lor bariwul waaye ñiy dikk lay loraat ka dikk ëllëg bëgg laaj réew mi nan lay def mën naa doon ne damay doon murit doon tijaan doon xaadir doon soose doon nangam te pourtant loolu rek lañ ko waroon a xoole moom kiy taw senegal moom lépp la war a doon waaye bu fekkee ëllëg kuy laaj réew mi yaa ngi xeet ban xeet nga bokk wala nangam sëg bëgg loolu yaakaar naa ne doy na nit yi tamit taxaw di laaj am réew wala muy laaj am mairie wala dara ñu ne ko bokkoo ci ñun ci famille bi wala ñun famille bi sàng famille bi danoo moom Sénégal wala danoo moom réew mi réew mi ku nekk am nga droit citoyen laaj ko ni ko ñëpp war a laaj loolu nag gouvernement bi war nañ ci jóg kilifa diini yi war nañ cee wax ah ñi nga xam ne dañuy defar te seen i kàddu doon kàddu yu rafet war na noo wax ne lii day féewale xamuñu ko woon ñi ko fi indi seen intérêt bopp rek a tax intérêt boobu nag intérêt sénégalais leen war a gënal seen intérêt bopp intérêt benn nit rek tax sacrifice ay famille wala dugg ci tarixa loolu xam nga politique daana am ba jóg te ay tarixa du ci yëngu ay diine du ci yëngu ay waasa du ci yëngu dara du ci yëngu dañuy dem rek wate ji ngir kan yi teg xañ ne dañ koo sopp ci mën a liggéeyam walla dañ koo gis mu gën a doon jàmbaar wala dañ koo gis mu gën a xam wala programme mu gën a baax waaye lii moom lu jara delto ginnaaw ginnaaw nag lépp ñun ñëpp ñoo ko bokk muy Sénégal ku ci nekk war ngaa yëkkati sa kàddu sànni ko ci xam ne élection yi ñu génn daal tàmbali na di yàq réew di yàq réew am réew loo ko mën a defare te jikko yi yàqu ñu dem ba ay jikko di yàqu ay famille di yàqu ay tarixa tàmbali di xuloo ay waaso tàmbali di xuloo ku ci nekk di yëg sa bopp yëg ne man ci xeet sàngam laa bokk kon nii laa war a defee yëg ne man ci waaso sàngam laa bokk nii laa war a defee loolu lu ñaaw bu ba waaso sàngam tamit di xeeb waaso ci Sénégal tan bokk loolu lu ñaaw la kon nan arrêté yii gis naa ne daal lu mu war a wax la lu mu kii la kàddu gu tuuti la ci waaye kàddu gu am yéene ci lu baaxal réew mi lu baaxal Sénégal moo tax ñu ngi taxaw li fii di sant mbokk yëpp di leen gërëm lu naqaru wu méttee métti nag lan ci am boo xamante ni bu nu yëgoon ne day jur jàmm duñ ko ci am waaye yëg ne du jur jàmm moo taxaw naqar di ci am kàddu gu tuuti la nag bu suufee goo xamante ni xañ na bu ko ñeneen ñi gën a dégg gën a kawe kàddu déggee danañ ci yëkk seen kàddu ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm euh, Baye Sall moo nekkoon ci caméraman bi soxna Awa moo réalisé émission bi Daara moo doon monté kon ñu jox leen daje ci beneen jotaay asalaamaaleykum wa rahmatulah.